yooyu la ñu war a bàyyi président du ko jéem a nax président da nga koy jàppale da nga koy dimbali da toog di wax ak moom dëgg président yi di nangoo toog ak nit ñi nga xam ne au moins danañ ko wax dëgg. d'accord mais soo su nit ñeenti nit rek wëree. Mhm. ñoom ñooy décider ñooy buum ñooy buumi ci xamuñu ci affaire yi dara lu dul ñëw di la wax loo xam ne dara amu ci de léeg-léeg ñu fal sax koo xam ni xëy na parce que local affaire gox la. am na ñoo xam ne bëgguñu leen sax foofa. d'accord euh, làmmiñ wu neex tax ba ba président investir leen ci erreur. Mhm. mais loolu loolu loolu manque de loyauté malhonnête wër président di ko def loolu yoo xam ni da ngay waru c'est pas bien. alors euh, monsieur euh, tey la suite judiciaire c'est c'est c'est, quoi parce que wax dëgg yàlla euh, kenn gañewul ci situation bi waxtaan la ñu bëgg mais encore une fois maa la koy wax léegi def ngeen li ngeen war a def mais ñoom ils font la sourde oreille aujourd'hui la suite judiciaire c'est quoi. la suite judiciaire mooy ñun def nañ benn recours en arbitrage yóbbu nañ ko direction générale des impôts. kooku itam tontooguñu ñu ngi xaar parce que il faut un délai de trois quatre mois looloy délai bi dañ euh, suñ amul satisfaction ci recours boobu arbitrage bi on va devant le tribunal devant le juge fiscal mu àtte ñu soog a xam kuy am dëgg il faut qu'on respecte les délais de procédure moo tax tey bi ñu déggee ne ay gendarme euh, nga baal ma doguma la non respect délai procédure boobu noonu est-ce tiitalul nit ñi est-ce que xëy xëy suba comme ni ñu defee ni rek ñëw di def inventaire ñu xëy suba saisir le matériel non loolu moom loolu moom il faut pour ñu outrepasser tous les textes euh, Euh, légaux et réglementaires pour ñeme koo def yaakaaruma ne dinañ ci yegg parce que nee naa la. problème bi problème civil la c'est pas un problème correctionnel. avec ces gens mais mais que la procédure est viciée depuis le départ depuis le début jusqu'à aujourd'hui mhm. lettres yi nga xam ne tontu wuñ ko le fait de ne pas respecter certaines procédures aussi. absolument mooy que demain si les gens viennent aussi pour saisir le matériel. non il faut que am ordonnance a xam ñii ah. xam nga leen <laughs> cest à que demain si les gens viennent ici pour saisir le matériel doo ci mën dara. dëgg la je vais te apporter un daal ñu ñu ngi ñaan président. Ah. le problème le ministre des finances. Mm-hmm. il a été induit en erreur parce que bi muy wax ci euh, RTS. Mm-hmm. peut-être qu'il n'avait pas ces éléments aujourd'hui il l'a parce que la RTS m'a m'a appelé ils m'ont interviewé je leur ai donné tous les documents donc normalement jox nañ ko ko donc. Euh, sa ligne sa ligne de fiscale la yi ko informé woon aujourd'hui il s'est rendu compte que ñii dañ ko doon nax parce que signature yi ñu amee ñun c'est des signatures des des des mandataires réels des impôts mmh. ñun amewuñ ay kayit yoo xam ne dañ ko falsifié wala dara la preuve dans le en dehors du groupe des médias on a on a une structure dans le groupe le 4 janvier gars yi dañu yónnee euh, absence de redressement dañu contrôler six mois yonnee ñu loolu bi avènement yi amee ak problème yi bi mu commencé ñu ñu yónnee ñu benn redressement de un milliard comment au cours d'une même année ñu jox la absence de redressement six mois après ñu jox la redressement. il faut il faut revoir l'administration fiscale. Abdoulaye Daouda Diallo c'est un inspecteur des impôts yi jàng na fa nekk ah. dàqunu. mais mooy ñooñu fa nekk dàqunu gënuñu koo xam affaire fiscalité. gënuñu koo jàng. te xam naa ne am na honnêteté boo xam ne mën nañu ko nag induire en erreur. dañ koy induire induire en erreur amul. mais mm. su ko wóoree nii lii nii la demee nee la demee parce que léegi dana ko wóor parce que affaire bi léegi ku amul ku gumba it am nga nopp ku amul ku tëx it am nga bët. Oh, ñëpp yëg na le DGID dans tout ça. non non le principe de base mooy. pourquoi des média pourquoi pas les autres Oui. Mmh. la question. Tout à fait. C'est un acharnement qui ne dit pas son nom. Mm-hmm. Mais Omar, loolu yëpp dëgg la li nga wax ni yëpp neex na. mais bu ñu yokk bu nu yokk. Eh non solution non xam nga. ñun c'est pas à de trouver de solution. non mais maanaam fexe ba solution am. non xam nga xam nga li may wax li ma bëgg a wax man je parle tant que journaliste. tey kay en tant nga dégg nga. médiateur. loolu lan la waaw non xam xam nga waaw waaw waaw bu bu ma ma ko sante aussi ma def si li ma mën hmm. boo koy sant ko yaa koy sant sa bopp nga bokk <laughs> yaa koy sant sa bopp pour c'est une façon de ah, mais pour pour revenir sur le xam nga aussi euh, maa ngi doon wax léegi la responsabilité parce que buñ jël yëpp xëppu ko état bi ça aussi c'est trop facile Des problème dans la profession il y en beaucoup il faut ñu seetaat suñ bopp ñu waxtaanee suñ biir parce que aussi même dans je le di vraiment par expérience am na nu ñuy traiter certaines informations da ngay sentir ne y a un déficit d'encadrement boo xam ne dama koy imputer ñun les anciens boo xam ne war nañu seetaa suñu taxawaay ñu jàppale xale yi di leen gën a tette parce que am na lu ñuy gis ñu ngi koy xool mais xam nañ ne du lii lañ leen jàngal du nii la war a doxee du fii rek même à la RTS mais loo leen mën a waxal. Mhm. ne dañu jéng c'est des grands professionnels am na loo xam ne kenn du ko fa def wax li nga xalaat ci grand place nga ñëw ci télé di ko wax loolu du chronique de nañ ko wax nag te dee. ça aussi c'est des questions. Mhm. qui interpellent toute la profession dama koy wax waxuma ko pour kii mais aussi booy critiquer jàmbur Macky sàll gouvernement bi nit ñi. da ngay xoolaat aussi sa bopp sa taxawaay man aussi lan laa waroon a def te def ko fan laa juumee parce que nit aussi day juum. Mhm. ñu xoolaat mbir mi seet aussi ni ñu def parce que réew mi ñoo ko bokk. tout man daal. Mhm. loolu mooy suma dernier message. xam naa léegi daanaka mat na sëkk effectivement. <laughs> looy tàggatoo. <laughs> waaw li may tàggatoo mooy. Mhm. Euh, di. comme Gaston nee na ma ci yëf yi laa bokk des deux côtés parce que Bougane suma rakk la suma xarit la ki nga xam ne moo jiite réew mi suma rakk suma xarit la suma doomu ndey la suma kóllëre la te politique boolewuñu donc war naa mën a wax ak moom li ma koy wax daal fitna ci réew mi ci situation bu difficile bi nit ñi soxlawuñ ko presse bi moom ni mu amee difficulté di ñaan ñu baal ko walla ñu reporter kii noonu la Gaston mi am problème ci entreprise am comme entreprise de presse yi parce que y a d'activité économique qui permette de d'avoir de la publicité entreprise yëpp a sonn bu leen suuxalul suuxat mais waru leen a indil ay jafe-jafe beneen bi mooy de façon globale euh, dëkk bi métti na àddina bi moo métti parce que Covid bi ñëpp la impacté donc il faudrait que ñu wax président en tout cas ñi ko bëgg yéene ko jàmm ñu ne ko nit ñi sonn nañ ceeb bi cher na suukar bi cher na inscription yi man bu ma sañoon sax mu décider inscription gratuite dans les écoles publiques de l'élémentaire jusqu'à l'université vous savez pourquoi parce que jigéen ñi ñu yore kër yi c'est des veuves c'est des mères célibataires te jënd kay inscription boo amee ñaar ñett dafa metti loolu il faut que ñu xam ne koom-koom bi doxul mu jàppale leen ci loolu mm-hmm. wàññi essence bi président Macky Sall candidat moo wax fële ci chaîne de télévision ñëpp di ko déglu mu ne jaaduwul essence bi jaar fii di dem Mali. gën fa gën a moins Mali que fii. Mhm. loolu ba léegi mu ngi am. donc boo koy digal yéene ko jàmm yéene ko réew mi da koy wax mu seetaat taxawaayam. mu jubli si loolu loolu mooy problème mu sénégalais yi. Mhm. njàng xale yi liggéeyu xale yi. dund gu métti bi courant bi essence bi. na solo bu nekkee si jàmm nit ñi buñ nekkee si jàmm moom mu am jàmm. ku koy digal yéene ko jàmm lool nga koy wax. man daal. am na solo lool laa ko loolu laa amoon. boole ci tamit rek euh, étudiants yi nga xam ne dañ